People. équipe matinale D'Alen leen c'est une revue de presse people le happy new year à vous équipe matinale voilà la nouvelle est tombée le jour de Noël Madonna est blessée et souffre au point d'annuler sa tournée la chanteuse mondiale a révélé souffrir de douleurs indescriptibles depuis le début de la tournée de Madame X sur son compte Instagram alors que je gravissais l'échelle pour chanter Batuka samedi soir à Miami je pleure de douleurs indescriptibles apparues depuis quelques jours douleurs qui obligent son équipe de mettre fin aux répétitions et d'annuler son concert. Deux heures avant, elle devrait performer à Miami, la ville qui clôturait sa tournée en Amérique du Nord. Elle a tenu à s'excuser auprès de sa communauté via le célèbre réseau social Je n'ai jamais abandonné, je n'ai jamais cédé, je n'abandonnerai jamais. Mais cette fois, je dois écouter mon corps et accepter ma douleur. C'est un avertissement, je suis profondément désolé pour tous mes fans pour avoir annulé mon dernier spectacle. L'artiste l'artiste de 61 ans suit actuellement en traitement et doit donc se reposer. Sa tournée européenne n'est pas annulée. Elle devrait débuter en 2020. waaw 10 ans de carrière de lu tuuti Adiouza nag def na spectacle pour xamné amul fenn ci Grand Théâtre waaw ndax daf ko fessel nak bañ fay yok ay chaise niki vendredi bi nak 27 décembre le Adjusa nak demoon fofu ci Grand Théâtre Waye nak amone fa it ay invité de marque ku ci melni ni Wow, Balago Seck waaw ak Fallou ak yeneen artistes nag yoo ne nii ñoom teewoon nañu naka ca bés boobu waaye la gënoon a neex ci soirée boobu naka moom mooy entrée wom lu amul fenn ñi ne déeta waaye kaalu di naka moom ne du ci yàmba moom 15 ans de carrière naka la doon féete ni ki samedi bi naka 28 décembre waaye it def na show ba nga xamante ne ni ay fansam loolu lañ doon xaar ci mooma moom it tayalu ci benn yoon fecc na wëy na ba def fa sax naka fecc bi di waalo waalo yëkkati fa ay tànk yu dëgër a dëgër waaw kay waaye naka la mu xamle rek ci concert boobu daal jeex na ndax jàpp na ni foofu ay problème yi neen la moo ko wax de ci kaw scène bi la xewee waaye moom it ci ay invité ma ci ñi ñu mën a lim ku mel ni groupe waa Baobab ñëw naka def fa salsa salsa daala le Carlou di daal di génnee ay sunu Baay Faal bi ca kaw ca kanam rek lay doon mu nekkoon seen revue de presse people du bés bi ma leen di jox dig daje suba. merci Rahma Diouf. Euh,